li jaaxal nit ñi mooy cette malédiction la de la Coupe d'Afrique euh, à part Égypte ak Cameroun ñoom rek ñoo fi am chance dem jël ko jëlaat ko de suite cette malédiction la elle est réelle d'ailleurs Algérie gis nañ tout récemment la Coupe d'Afrique bi amoon fële ca ca ca Cameroun. Mhm. ci yow ci yan anam ak ban composition. la le sélectionneur war mun a def pour cet objectif la dina ñëw tout à l'heure sur le plan technique parce que euh, deux dernières rencontres yi dafa xaw a am benn buu boo xamante ne bu mu bu mu lese ci ci mhm. ci ci ci ci xolu sénégalais yi mhm. mais d'abord ci naka ban ban ban ban ban façon liggéey la la le sélectionneur war mun a def pour li mu bëgg mu am ko parce que yaa ngi koy wax le Sénégal sera très très attendu. mais parce que aussi loolu bu amee rek ça veut dire que équipe bi gagné woon Coupe d'Afrique bi bi. ñu ci bëri dañu dem et aujourd'hui la chance qu'on aura et je vais le dire et je vais le dire nettement aux Sénégalais ñu dégg ko la chance qu'on aura c'est d'avoir un Cheikhou Kouyaté un Idrissa Gana Gueye qui ne joue pas l'essentiel avec son club qui joue pas avec Nottingham je t'explique je t'explique Adja xam nga gagner c'est une organisation tu peux avoir les meilleurs joueurs et tu gagnes pas gagner c'est une organisation fan laa ko teg aujourd'hui Cheikhou peut-être que tout le monde nit ñi gisuñu ko un euh, Gana Gueye il y a des matchs c'est son match un Cheikhou il y a des matchs c'est son match regardez le match contre le Cameroun et aujourd'hui avant ñuy dem coupe du monde damay dellu si ndax yow yaa ko wax avant ñuy dem coupe du monde dañu waxoon na Cheikhou at Gana Gueye léegi ay mag lañu buñ leen yóbbu te bi biñ demee coupe du monde c'était les meilleures satisfactions de la coupe du monde la preuve le match contre Angleterre les deux n'étaient pas là et tout le monde mm-hmm. donc pour te rek rek xam nga football ñaar la avant wax ji ak ci biir terrain bi et que aujourd'hui quand on regarde pronostic gu ay Cheikhou ak ay Gana mais ils ont toujours répondu présent donc pour wax la rek ni la gagner du xale mooy gagner on gagne selon le temps Sénégal lu tax tey muy gagner c'est parce qu'il y avait 86 c'est parce qu'il y avait 90 c'est parce qu'il y a eu 2002 il y a eu et ba si tey jii suñu échec yooyu yëpp la ñu jàng ba tey. tirer les leçons tirer les leçons. et li génération bi tey jii lu tax ñu gagner. c'est parce que Aliou a su tenir une équipe. mais, mais pas dañ koy ne il est il est trop conservateur c'est-à-dire joueur am yi mu jëlee depuis olympique ba léegi dafa ossature boobu bugg ko. bugg ko bàyyi xam nga loolu lan la tudd loolu moo tudd li nga may wax nii moo tudd euh, ñun dafa am lu ñu jàngal. quand tu vas à la guerre tu vas avec qui avec tes propres hommes. ñoo xam ne wóolu nga leen. Mhm. dëgg aujourd'hui Aliou ne gère pas une personne il gère un groupe et li ma la wax nii ni la euh, nit ñaa ngi naan woy lii laa nangam no déet Aliou il gère un groupe xam na stature bu mu soxla y a y a y a y a deux semaines trois semaines nit ñëpp waxoon nañu Edouard Mendy jeexal na mais regardez les derniers matchs qu'il a ah, fait contre le Togo donc c'est ça les grands joueurs c'est que les les grands joueurs c'est les grands matchs et aujourd'hui les grands matchs je sais qu'ils vont répondre présent et man fi ma teg nii aujourd'hui le Sénégal a encore la meilleure équipe regardez sunu banc xool leen sunu banc boo xoolee nii toog xool sunu banc notre banc joue partout en Afrique. Hmm. Abdou Diallo fan la dul jouer tey jii. non. ah. oui c'est vrai. Euh, euh, eh, waxagu waxaguñu Pape Gueye la doogay dellu si waat. et il faut que tamit mu dellu si waat si groupe bi. Bamba Dieng tey jii ban équipe la dul jouer en Afrique. et pourtant c'est des joueurs yu nga xam ni aujourd'hui ils sont pas dans l'équipe du Sénégal. y a que trois ou quatre qui sont sûrs d'être titulaires mais ñi si des ñëpp tey jii bu leen génnee dugal tam dañuy gagné